fierté la. fierté doomu Sénégal. ci doomu Sénégal. boo xam ni. boo xam ni. mi ngi jéemantu. mi ngi jéemantu. di ñu andi. di ñu andi. loo xam ni. loo xam ni. bu masaan a génn. bu ñu masaan a génn. di gis ay ñeneen di ko def. di gis ñeneen di ko def. muy ay tubaab. muy ñu ci yéeme. ñu ci yéeme. ndekete. ndekete. loolu ñu daan yéem. ndekete loolu ñu daan yéem. sunu mbokk. sunu mbokk. sunu deret. sunu deret. mi ngi koy gis. mi ngi koy gis. bëggal ko sunu réew. bëggal ko sunu réew. ba dootuñu yéem. ba dootuñu yéem. kon yooyu dara yéematuñu. kon yooyu ñu dara yéematuñu nag. ndax lu mel ndax lu mel kon képp koo xam ni. kon képp koo xam ni. sénégalais nga. sénégalais nga. Eh, nga. di yëngatu ngay def lu mel nii. ngay def war nañ la encouragé. war nañ la encouragé baax. loolu moo tax. loolu moo tax. Alaaji Demba. Alaaji Demba. ak ku mel ni moom. ak ku mel ni moom. suñu fierté la suñu fierté la. ñu bëgg. ñu bëgg. invité Sénégalais yëpp. nekk def lu kenn ku ne def lu mel nii. ndax ñu bañ a ñeewati benn. ndax benn réew. benn réew. benn réew. kon ñu ngi ñaan yàlla. kon ñu ngi ñaan yàlla. alaaji Demba. yàlla na ko yàlla gën a jàppale. gën taxaw gën koo taxaw. wax naa ko ni ko depuis eh, ODK ñëw. dip ni wax naa ko ni ko depuis ODK ñëw. ak ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci biir réew mi. ak ñi nga xam ne ci biir réew mi. man sama lépp ci ñoom laa koy def. man sama lépp ñoom laa koy def. ñu fi taxaw nag fii. ñu ngi fi fii. turu xalifa bi. turu xalifa bi. Serigne Babacar Mansour. Serigne Babacar Sy Mansour. ak ay rakkam ak i rakkam yëpp. Seydi Hadji Malick Maodo. Seydi Hadji Malick Maodo. ak Serigne Babacar Abdoul Aziz. ak Serigne Babacar Abdoul Aziz. ak waa Tiwaawan yëpp. ak waa Tiwaawan yëpp. noonu it laa fi taxawalee taxaw waa Touba yëpp. taxaw fi waa Laayeen yëpp. taxaw wutu fi it wutu fi it waa ba. réew mi noonu lay dox. réew mi noonu lay doxee. benn lañu. benn lañu. kenn ku ne. kenn ku ne. foo ne. foo ne. ña ca des ñëpp. ña ca des ñoom nga fa nekkal. ñu man lépp lu naan dañ ko ko def ndax dëkk bi. ndax dëkk bi dañ ko def. ndax réew mi ndax daanu ko def ndax réew ko def. ndax daanu ko def ndax seen kilifteef. di ñaanal ginnaaw bi nga ñaanee ba pare. ne ginnaaw ba nga ñaanee ba noppi. yokkute ak yokkute ak ndax pour El Hadj Demba. ndax El Hadj ak ñi fi nekk ñaan suñu borom gunge leen. ñaan suñu borom gunge leen ba ñu dajewaat feneen. ba ñu dajewaat feneen ubbi yeneen. ba ñu ubbiwaat yeneen yoo xam ne yuy jëriñ réew yoo xam ne yuy jëriñ donc comme ni ngeen gisee boutique bi ah a plus de 5000 articles yoo nga xam ne ñu fi e que sous très peu incha allah dinañ dem douze mille quinze mille voire même vingt mille articles nga xam ni loolu liñ koy li tax ñuy créer articles yooyu mooy pour satisfaire les clients donc client bu ñëw rek gis nga li nga xam ni moom la bëgg moom la bëgg ci boutique bi parce que EDK dafa nekk entreprise boo nga xam ni euh, Low Price c'est une de EDK ah Low Price la boo nga xam ne dafa nekk ci groupe EDK parce que EDK c'est un groupe avec des entités donc Low Price mi ngi ci moom tout ce qui est grande distribution donc Low Price moom moo koy gérer donc on a un personnel qualifié vous le voyez c'est en fait des ay jigéen ñoo nga xam ni euh, dañu engagé dañu déterminé dañu dañu xam liggéey bi ñuy def et puis c'était c'est des professionnels te fii te fii mooy suñu siège parce que ci kaw huit étages la donc mooy suñu siège waaw insertion man damay wax ni que euh, ñun fu ñu nem fu ñu dem rek zone bu ñu dem rek dañuy créer ay emploi foofu parce que fi ñu fiy liggéey ñu ci ëpp Ngor lañ dëkk ak almadi parce que mooy suñu politique sociale suñu installé woo ci benn entité si suñu installé woo ci benn localité on prend les gens de la localité ñuy liggéey foofu fi mu nekk nii fii plus de trente cinq personnes nga xam ne ay direct directs lañ créé nañ ko ak plus de quinze personnes yoo nga xam ne c'est des emplois directs boo xoolee total bi rek ça fait mine de rien personnes yoo nga xam ni boutique bi créé nañ ko en terme de en terme d'emploi et que c'est très important parce que au cas loolu mooy ci jàppale appuyer les jeunes ah ñu mën a liggéey ci ci ci ci dëkk bi mën a liggéey sur les points EDK mën a liggéey ci supermarché yi mën a liggéey ci toutes les entités de EDK. waaw politique de prix moom laa doon wax sànq parce que comme son nom l'indique ñun suñu boutique yi low price la tudd low price mooy les prix ba ah c'est les prix ba donc fii bu fi ñëw c'est des prix très abordables c'est des prix concurrentiels yoo nga xam ni voilà. ku am sa bourse rek di nga mën a di nga mën a jënd li fi et puis c'est des produits yoo nga xam ni voilà c'est des produits de qualité produit yu baax la yu vraiment yoo nga xam ne clients yi apprécier nañ ko ba pare cherul xam nga loo xam dafa baax ba pare moins cher donc ni ñuy def mooy woo ñëpp waa Ngor waa Almadi ñi nga xam ne ñooy suñuy suñuy suñuy dëkkandoo di suñuy voisin di suñu cible direct ñoom ñu wax leen pour ñu ñëw parce que ubbil nañ leen supermarché boo nga xam ni lépp loo xam ne mën nañ ko gis ailleurs en terme de grande surface boo ñëwee fii di nga ko fi fekk. fi andi. li fi andi. mooy sargal ko. mooy sargal ko. ak gërëm ko ak gërëm ko. tànn bi mu tànn sunu. ki tànn bi mu tànn sunu sunu dëkk bii. parce que a def fi séeréer. parce fee def lii. loolu teraanga bu rëy la. loolu teraanga bu rëy la. ndax réew mi yaatu na lool. ndax réew mi yaatu na lool. mënoon na kaa def fu ne. mën na koo def fu ne. waaye dafa tànn def ko sunu. waaye dafa dafa ko sunu ko loolu ko ci fay. ne loolu mën na ko cee fay. ñu ngi koy sant di ko gërëm. ñu ngi koy sant di ko gërëm. di ko ñaanal. di ko ñaanal. yéene bi mu am. yéene bi mu am. ba def ko fii. ba def ko fii. yàlla defal ko ci ndam. yàlla ko yàlla defal ndam. defal ko encore tout cas ñu ngi leen di encouragé bu baax ci initiative yu mel ni parce que xam ngeen ko sunu dëkk bi tey lu mel na ci distribution la euh, distribution grande surface bëri na ay kuréel yu fi nekk yoo xam ni soqeeku wuñu ci réew mi donc ñoo wër fii yëpp donc lu mel ni bu un national jugee dugal ci loxoom li war état administration. mooy gunge leen jàppale leen pour que lii mën a law ñu xam ne lii fierté nationale la. parce que ñi fi ñëw dañoo ñëw pour ut si mais bu ñu paree dañu yóbbu seen dëkk. du fii lañ koy investir de luñ fi liggéey yi day dem seen dëkk. te bëri na léegi ñu ngi diversifié wu. façon dëkk yu ne seen i ressources ngi ñëw. dugg dans la grande surface. donc ñun nañ fonk suñu moomeel lii xam ne suñu alal la ci réew mi lay delluwaat. encourager aussi yeneen nationaux yi nga xamante ni ñu ngi fi yàlla may leen kàttan te dugguñ ci ñoom it ñu mën cee dugg bu ko defee suñu économie mën a jëm kanam parce que lii mooy doxal économie dëkk du leneen. ñu ngi leen di ndokkeel di ñaan yàlla ubbi nañ fii ci cadre bi. ci cadre bi cadre bi ci cadre bi. yàlla na ñu ubbiwaat. yàlla na ñu ubbiwaat. yeneen yu bëree bëri yeneen yu bëree ñu ko ëpp lool. di leen ziare. di leen ndokkeel di leen yóbbante ndokkeel di leen yóbbante ndokkeel ci alaaji Demba yal na yàlla barkeel yal na yàlla jàppale di ñaanal personnel bi di ñaanal groupe bi di ñaanal groupe bi yal na yàlla defal taxawu leen yal na yàlla taxawu leen ba li ñu yaakaar ba li ñu yaakaar ci Demba ci Demba yàlla bu mu tas yàlla bu mu tas